ay nit ñu bëgg jaay leen doole nangu seen suuf dem seen yoon te kenn du ci mën dara loolu nag salaamaaleykum maa ngi lay nuyu kilifa gi. waaw maa ngi lay nuyu di la ziar. Euh, la. Talla Kéré la. waa Kër Sabakan. waaw Talla la membre from de Kër Sabakan euh, effectivement tey nag dañu ñëwoon fii nii pour euh, dox doxu ñaxtu pour wax suñu naqar suñu naqar nag nekkul lu dul dañoo am kay nekk fara ca suñu commune maanaam ci tubaab mooy maire ci commune Kër Sabakan muy Khalil Ibrahima Fall nekkee woo fa lu dul caxat caxatee suufu askan wi nekkee woo ay contrat kattanu yu nga xamante ni duñu ko yëg te loolu mu nekk ay xaalis yu nga xamante ni commune bi du ci yëg dara li mën naa la ci siteel que euh, carrière bi nga xamante ni moom lañ defale Ila tubaa xam nga ne Ila Touba du projet bu ndaw ba léegi ni mënul la wax ni contrat bi lii moo ci nekk te code des collectivités locales dafa wax ni bépp contrat bu nga xamante ni dafa dépasser une montant de 500000 doit être délibéré par les conseils municipaux donc tey bu loolu yëpp amee. caxat caxat boo mu nuy caxat caxatee alalu askan bi moo tax tey ñu ñëw fii am na leneen lu gën a garaaw muy délibération une délibération de mille hectares bu nga xamante ni euh, projet état moo waxee Prodac di ngeen ko xam Prodac la ñu la ñu alloué 1000 hectares ah. ñun état la déserté aux pauvres paysans ñun nag ñu taxaw ni loolu duñ ko nangu ndax li am Amérique latine paysan sans terre ñun duñu nangu ñuy jël suñu ay suuf di dem ak moom buñ demee a un moment donné parce que fii ak euh, ak vingt ans bu fekkee dañ ñu askan bi taxawul li dal Amérique latine dinañu dal loolu duñ ko nangu délibération de mille hectares dañuy wax ni dina dakk tey immédiatement dina dakk mënuñoo fexe fexe ba délibération boobu jàll ndax ñun askan bi taxaw nañu machine bu fay daw ci suñu kaw ngay daw loolu man Talla Kéré maa leen ko wax waaw. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam ñu lay fay. ban kuréel si fii. sujet la. waaw sujet la Pout. lan mooy suñu naqar moom. suñu naqar ñëpp xam nañ ko parce que ay liggéeykat lañ yoo xamante ni dañoo nekkoon ci benn entreprise di liggéey depuis des euh, une vingtaine d'années wala mu ëpp ko ci ñenn ñi ah ñu toog nag trente cinq mois yoo xamante ni fayuñu defuñ ñu dara jékki-jékki rek ne léegi licencié nañ leen ñoom ñëpp licenciement pour motif économique ah depuis boobu ba léegi aussi licenciement bi nga xam ne waxoon nañ ko respecté wuñ ko waa ah, ñun daal ci yooyu lañ nekk. tur hmm. fàtte ñu tur waaw ah. maa ngi leen di. salaam tur bi nan la. Euh, Mouri Thiam euh, coordonnateur euh, des habitants de Kounoune Dalal Jàmm. tey lan moo nekkoon seen naqar. waaw ñun lii suñu naqar mooy. dafa am benn injustice boo xam ne ñu ngi koy dund depuis ñaari at. bon injustice boobu nag bon li ko waral mooy benn société bu tudd bon Sokabek Modou Mamou Samb jiite ko moo xëy xëy rek ñëw fekk ñu fi ñu dëkk tabax ko depuis depuis 2012 am ay kayit yu leer mu ñëw mu ne foofu moo ko moom moo dafa am titre foncier li ñu si jaaxal nag mooy titre foncier bi mu am. Euh, il est clairement indiqué que moom il a acheté euh, un immeuble à Rufisque mënoon nag jënd un immeuble à Rufisque ñëw pour ne yaa ko moom te ñu il nous accuse occupation illégale mooy euh, dañoo toog fi ñu toog dañ faa jënd bon dañ faa tabax te yoon mayuñu ko may fàttali ne yoon li mu wax ne fa la war a jaar pour am kër mooy maanaam foofu nga am délibération. bon délibération foog sous-préfet approuvé ko loolu yëpp am nañ ko délibération yu leer yoo xam ne euh, kii Ndiagne Diop moo ko signé moom lañ yor te délibération yëpp euh, sous-préfet yi fa jaar yëpp approuvé nañ ko te ñun yemuñ ci loolu dem nañ sax euh, ba am benn. ki benn levée euh, benn levée topographique boo xam ne benn géomètre agréé mo ko def euh, géomètre bi nañu fi ngeen nekk domaine national la yemuñ ci loolu euh, Ibrahima Bari bi ancien bon directeur du cadastre de Rufisque am na benn kayit bu mu ñu jox boo xam ne suñu benn dëkkandoo moo entamé woon une procédure de régularisation mu jox ko kayit boo xam ne def ci bon def ci dëggal ne kooku fi mu nekk euh, bon domaine national la du titre foncier kayit yooyu yëpp bon yor nañ ko donc ñun mënuñu accepter nit jóge fële ñëw bëgg a topp suñuy kër euh, bon ci loo xam ne tegu ci yoon. maa ngi la xaasum jëm. te a par mooy. te ñu ngi koy nationale de lutte du Téel lañu ñu ñu parce que état bi. jërëjëf dafa collaboré ak euh, association de consommateurs pour mu ne pour ñu exclure si secteur mburu. ñoom nee naan ñun waruñu euh, yóbbu mburu parce que euh, mu ne problème d'hygiène. du problème d'hygiène parce que farine bi dafa yokku boulanger dafay dafa bëgg a yokku prix mburu état mu bañ ak consommateur comme état dafa bañ lool mu ne léegi kaay leen ñu waxtaan ñun woowuñu dafa woo borom boulangerie woo consommateur bi Euh, woo producteur farine bi pour nee na euh, ñun ñu dàkk ñu fu ñu liggéeyee ñu dàkk ñu ñu mun a récupérer ñun ñu amoon si si si niis mburu bi loolu métti na lool te ko euh, dama indi argument argument bi mooy nee na il ñoom moo samp ki distance de 500 mètres diggante boulangerie ak distance. pour rassembler diggante point loolu yëpp ay argument kese du pour professionnaliser secteur bi mais pour éliminer suñu liggéey loolu mënul nekk parce amuñu moyen nee naa dafa ñu imposer oto euh, oto oto blindé ne oto buy jar au minimum quinze millions comme ça te nga am cent cinquante francs il faut jaay fukk fukk kilo mburu nga am cent cinquante francs loolu loolu mënul nekk ñoo tax léegi euh, waa Euh, waa commerce bi mu ngi wàcc si mbedda nangu suñu alal nangu suñu mburu nangu suñu moto nangu suñu vélo nangu suñu pousse-pousse yóbbu ko fourrière euh, dem si boutique dem si boutique enquête ko kaal mu ne kenn warul jaay mburu si boutique loolu ay contre contre population bi non non léegi ko amul lay ñoom nee na amul droit ndëkki parce que boutique moo moo a lebal euh, population bi boulangerie yi du lebal kenn point de vente diggante boulangerie ak point de vente xaaji euh, xaaji kilomètre nga dox xaaji kilomètre ba nga am dagg mbir bu fukki dërëm loolu mënul nekk fii moom sama liggéey maa ngi leen jërëjëf maa ngi. Mamadou Diop le secrétaire général adjoint mouvement ànd defar Kër ñu bàyyi ko ci commune bu Kër Moussa département de Thiès ñëw fi tey pour euh, andi suñu ay revendication revendication yi nag yàgg na lool suñu diggante ak filifili filifili di benn naar benn libanais ñëw Kër Moussa jël suñu suuf yi ba koo lekk jël suñu suuf yi ba koo lekk suuf yoo xam ne lu toll ak juróom-ñaari dëkk ñoo ko moom ñetti commune ñetti commune seq ko juróom-ñaari dëkk seq ko. moom fili fili naar boobu jógee Liban ñëw ci dëkku jàmbur ci réewu jàmbur ni moom moom suuf yooyu baykat yi amuñu fu ñu bayee sàmm yi amuñu fu ñu sàmm dëkkuwaay yi dab na foofu amatuñu fu ñu dëkk loolu mooy suñu jafe-jafe ñu ni déedéet waaye ñu dolli ci l'abbé yi abbé yi je dis bien abbé yi les moines ñoom it dolli ko ci problème bi ñëw bëgg a lekk suñu suuf ñoom ñu fi ñëw 1963 fekk Kër Moussa ëpp na lu am 100 ans ëpp na 100 ñu ñëw ñoom it dolli ko ci problème bi ni ñoom it ñoom moom suuf yi au détriment des populations ñu ne loolu sa pas normal du tu loolu nag la ñu ñëw pour revendiquer ko aux yeux des populations au yeux du Sénégal mais au yeux de l'international mu teg ci beneen yaa ngi koy gis ni benn usine jën usine jën ci biiru dëkk ci côté population bi usine jën ak kat gu mu am ak conséquences yi nga xam ne yëpp am nañ ko usine jën boobu moom it ñëw installé wu kan moo ko jox ay kayit kan moo ko jox droit de construction kan moo ko jox permis yooyu la ñuy war a laajte ba mu ngi construire def nañ pétition déposé ko fi ñu ko war déposé def nañ si sitting def nañ li ñu war a def yëpp léegi nag ñu ngi ciy déglu autorités yi pour ñu dakkal construction boobu lu ko may daañu ñu dégg dans les jours à venir. waaw tey teew fi rek euh, ànd ak euh, suñu compatriotes yi nga xam ci ay jafe-jafe lañ nekk bu waa doy na man moom bon maay le coordonnateur du Front National. pour le progrès des étudiants du Sénégal bi nga xamante ni bachelier non orienté yi ci lañ bokk waa UVS ci lañ bokk maanaam les étudiants déclarés non éligibles à l'UVS ci lañ bokk mais aussi également le cercle des étudiants du privé donc euh, loolu yokk tax ñu déplacé wu tey ñu ñëw pour wax ñu respecté waat encore une fois étudiants yi orienté les 1348 bacheliers yi am seen bac depuis juillet 2019 ba léegi kenn orienté gu leen octroyé attribué ay machines ak ay clés de étudiants yi nga xamante ne ñoom lañ déclaré noonu la jour à l'UVS donc c'était ça moo taxoon ñu ñëw fi waaye tamit bi ñaan autorité yi ñu gën a jox respect ak considération suñu compatriotes yi nga xamante ni ñoo suñu camarades étudiants yi nekk ci privé bi donc loolu moo waraloon tey suñu teewaay am yaakaar ni autorités yi suñu gisee tey lu fi teew dinañ ci bàyyi xel ba ñu mën a saafara jafe-jafe étudiants yi parce que étudiants yi ñu ngi dund ay moment ay difficultés donc loolu moo nekkoon tey kàddu yi quoi suñu ngi fi waaw euh, tey bi. am na solo. Euh, ma yaakaar rek ne autorités yi dinañ ci jël en compte quoi. ba li askan wi di laaj ñu gestu leen saafara ko. tey lan mooy doon waaw ah, man maay coordonnateur collectif habitant terme sud. mooy li ngeen gis fan yi yëpp soldats yi ñëw dal ci ay njaboot. waaw man maay coordonnateur boobu. mi mel ni li moom la boo armé ràtt ma pressé ma ba ma jeex tak tak tak tak. mu bàyyi maag sama sago waaw te li waral marche bi mooy kër bu ma dëkkoon Keur Moussine ba ñu dàq ma euh, ñu comprendre dinañu defoon ne ñun ñoo dem retraite occupé logement de fonction ñu bañ ko libéré les logements ne n'ont jamais enfin depuis 1994 bail bi lié ak euh, l'état domanial jeex na ça veut dire que état moo moomoon des droits réels bu l'état des droits réels le plus récent charge propriété état ça veut que la Comico n'a rien là-bas d'autant plus que l'état le tribunal avait commis un géomètre expert pour faire l'expertise des lieux Ce géomètre expert, dans son rapport, en conclusion, il a dit que la Comico n'a rien là-bas. C'est mon En tant que citoyen sénégalais, je viens pour combattre l'injustice. Moi, je suis habitant de Wakam. Wakam fait partie de Terme Sud fait Wakam. Donc je viens manifester mon mécontentement par rapport à li ñu def les populations les familles de Terme Sud. On ne doit pas di ni ñu leen déperpiré ñaaw na pour manifester suñu suñu mécontentement moo tax ñu ñëw fi tey ñu amaat beneen casquette nag bu buñ fi taxawaatee tey moi je suis le le coordonnateur du collectif 5007. 5007 aussi tam fait partie si Wakam la nekk. Euh, man ci cité Terme Sud bi ñu déggee fan yi passé ci laa bokk waaw. bon en fait ñun ñu ngi nii ah ñun soxlawuñu dara suñu kër yi rek la soxla du leneen luñ ci soxla waaw di wax Macky président Macky Sall tamit na ci bàyyi xel quoi waaw na ci bàyyi xel mu jàppale ñu si bagage. Ah, suñu suuf terme sud yi ñuy jël bañ ñu ko delloo. te ministre rek xam te ministre rek xam fa lañ juddoo fa lañ màggee suñ papa yi fa yaa ngi liggéeyee dañuy delloo suñu suuf soxla ñu dara soxla ñu dara suñu suuf rek lañ soxla suñu suuf kese lañ bëgg kese dafa yomb ñoo fekk fi dëkk jugloo la par force waaw si ay fête si ñaax feera ñun nag bëgg ñu yëngal dëkk bi moo tax ñu doon dox suñu marche ñu ne ñoo bëgg ñu delloo suñu suuf si jàmm ak salaam sinon que dëkk bi ni mu gën a demee du baax nañu delloo suñuy kër soxla ñu leen suñuy kër kenn toj kër yi kër yi kese la ñu soxla. jaay doole baaxul. jaay doole baaxul. jaay doole baaxul. ñaata scandale. ñaata ñaata. libéré Ndiobu Gueye. Ndiobu Gueye. libéré le sergent. libéré le sergent. libéré Ndiobu Gueye. ñoo lan ñoo bañ. ñoo lan ñoo bañ. suuf lañu bëgg suñu yoon lañu bëgg suñu yoon lañu bëgg